yéen gaayi bàmba déglu Muusa murit ba woon na leen ndaw mag ak góor ak jigéen nañ wuy ji Ahmadul Mbakke magal gi di xibaar yéen xamul te xibaar te nara dem di fa siyaar ngir jëmi Ahmadul Mbakke a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi wahdahu wassalaatu wassalaamu alaa man kaana bihi assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bokk yéen ñii di seetaan seen seen bi di def ñoom léegi ñu bu baax jëlee weer bu màgg bu tedd wala bis màgg bu tedd bii muy bisul safar di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di la sëriñ bi génne woon dem liggéey di borom subhanahu wa taala mu ne woon bu delseetee képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte na na may sant sama borom moom lañ dëgg moom ñu koy waajal ci ay waxtaan yoo xam ne bëgg a jàngale kan mooy sëriñ Tuubaa lan a nekkoon ak waayam tey nag ñu jël benn tomb ci euh, jëmmi alxuraanu karim nga xam ne da koo boole woon ci ab liggéey ku ne xam ne ne mënee su ko waxtaane ci ay jataay yu bari waaye lu jël benn jataay rek barke na ko jëmmi alxuraanu karim suñ bu baax ci biir jataay bi ci anam yoo xam ne ci anam yàqu lay doon ñu ngi jàkkaaroo ci jotaay bi sëriñ Abdou Mbacke di indi Cheikh Abdou Khadim Mbacke ñu gën koo xam sëñ jiitam sëñ Fàllu waaye sëñ Abdou ñuy bàyyi xel ni ab sëñ daara la wax na daara di jàng na alxuraan ndékk ba a bokk jotaay bi kon sëriñ jiidi sëriñ Abdou jiidi dañuy jox kàddu bi nga néew ba tey suñu waxtaan. auzu bi min sharri maa xalaq bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l-ardi wa laa fi s-samaa'i wa huwa s-samii'u l-'aliim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi wa xadiimihi ajma'iin mbokk yi seetaan seen seen bii di Ndindy Actu ñoo ngi leen di nuyu nuyu islaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jël nuyoo bi di ko teg teg ci loxob sëriñ Abdou Fatah mi nga xam ne moo ñu dalal ci émission bii di jaar noonu di nuyu soxna Ndeye Mbakke mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ginnaaw nuyoo yi ak cant yooyu ñoo ngi ñaanal ñoo ngi ñaan yàlla mu yàggal fi sëriñ Mountakha te wéral ko di ko ñaan mu yàggal fi sëriñ Abo mu Cheikh Mamadou Fadal te wéral ko di ñaan mu yàggal sëriñ Abdou Fatah mu Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne ci ak keppaaram la ñu nekk nii di waxtaan te wéral ko di nuyu mbokk yi seetaan ñëpp rek di ñaan yàlla def ñu émission bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp luñ ci wax mu dëppook ni ko sëriñ bi bëggee ci mbaaxam ak màggam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum xam ne ne sëñ Tuubaa ni mu ci alxuraanul eh, benn a barkeelu ndax mën nga maanaam nan la firi woon ci alxuraanul karim ndax bi jiitu muy woote yoonu mooy ku ne xam ne ne ci alxuraan la ne ak dund mi ci alxuraan la ko def waaye ndax mën nga ñëw dikkal bi muy woote yoonu mooy ci bi nan la doon doxee ci alxuraan. Ah, jërëjëf sëñ Abdou Fatah ci laaj boobu. alxuraan day day téere bu màgg boo xam ne bu kawe la Sëriñ Tuubaa nag léppam day alxuraan mu def ci lu nekk jëf ci lu nekk ba ci jëm mu wax ne malakanil quraana tamlikan yadum yàlla dama moom loo alxuraan jékki-jékki wu rek wax ko waaye dafa am fu mu jaar ba agsi fa alxuraan nag day téere boo xam ne bi àdduna bi mu wàccee ba ni àdduna tukkee suñ borom moo ko wàcce te moo koy sàmm innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun sàmm googi nag dafa am yu ci war doomu aadama ngir sàmm gi mën a dëggu dafa am juróom benn yëf yoo xam ne Sëriñ Tuubaa daf cee sàmm alxuraan ngir déggum dégg aaya boobu yi daf caa bokk mokkal alxuraan waa këram gën ko mokkal ñépp muy benn ba ñaareel ba daf caa bokk di ko jàng waa kër tim dàq ko jàng ñëpp muy ñaar ñetteel ba mooy di ko bind waa këram dàq koo bind ñëpp muy ñett ñenteel ba mooy di ko dajale di ko jënd di ko dajale ñu koy bind di ko jox mu koy dajale dajale googu tamit mu raw ci ñëpp dàq ko ñëpp waa këram ñëpp dàq ko ñëpp juróomeel mooy teral alxuraan lim ni mu ko teral dégguñ ci taarix ku teral alxuraan noonu yi jël ay lal yu sell yu rafet teg ci alxuraan di ko tagg di ko sotti ay gëtt yu neex di ko way teraanga jooju tamit gisuñu gisaguñu ci kaw suuf koo def alxuraan bokk na ca tamit juróom mbenneel ba sàmm ñooñ alxuraan waa daara ñi nga xam ne ñoo féetu alxuraan fi leen bi tegoon ci di leen màggal nga xam ne ki ko mokkal ak ki ko mokkul leen yamale di leen sàmm di leen saytu loolu tamit gisuñu fi ci àgg ku fa àgg bokk na tamit jëfe li alxuraan ay atte alxuraan mu koy jëfe loolu tamit fi ci sëriñ bi àgg ak waa këram àgg gis guñu ko ñu kaw suuf kon juróom-benn yooyu ma tudd mooy mokkal alxuraan di ko jàng di ko bind di ko dajale di ko teral di sàmm ñoñam te di jëfee atteem loolu bu dajee rek wattu alxuraan day daal di mel nekk ba faaw kon Serigne Touba aaye boobu daf cee raw ñëpp moo tax ak dundam gépp nag daf koo jeexaloon ci sàmm alquran daf koo jeexaloon ci liggéeyal alquran liggéeyal alquran jooju nag moo ko jural mu dem ba wax ne mooy samam koom mooy sama banque mooy sama coffre-fort waaye itam soo fi jóge woon ci saahir mooy miraas mi ñu mën a ci man wax ne qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi da sidqi jàng gi ma jàng alxuraan de mooy sama koom mooy sama daraja mooy sama tedd nga ci lépp am na feneen fu mu waxaat ne bi xidmati alqurani wal xadisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi kon amuma lenn lu ñuy doon ci àdduna lu dul alquran kon relation bi ma bi am ak alquran ak ni mu ko fanke woon relation bu yaatu la boo xam ne neexut a waxtaane ci benn jataay neexut a waxtaane ci benn émission waaye lañ ciy cof rek li ci des kuy gëstu mbindi Serigne Touba wala nga ci mos da nga gis lu ëpp lu ñuy wax waaye daal xam naa ne relation bi mu am ak daal relation bu rëy la relation bu yaatu boo xam ne jéggi na dayoo sëñ Abdou Fatah. allah jërëjëf sëñ Abou Mbacke mm. ci leer bu li ko waykat wax naan Cheikh Bamba xorom na Qur'an daan teg ci lal yu ñu yéem ak borom Touba. Mm-hmm. xéwal mooy borom Tuubaa mu mel ni wax nga ni yoonu mën a taxawee ci alxuraanu karim mooy di ko mokkal di ko bind yaakaar naa beq yi ak ak ak bindi kaamil ay yoon yoon lu ñu xam ci Tuubaa la tey te amuñ ma morom bu dee kaamil yi ñuy bind ci réew mi di ko tasaare yaakaar naa ci doomi Tuubaa bind ci kaamil yoo xam ne mënuñ ko di ko jàng alxuraan mënoo xam nu mu toll moo xam sëñ Abdou Lahad Souhaïbou moo xam sëñ Jiidi Abdou Lahad mm-hmm. sëñ ay kaamil sant ko yoo xam ne dañ ne sax kuréel ñu koy jàng ci ay was yu nañ mm-hmm. waaye wax ki nga wax ne euh, dundinu alxuraan ak yoonu murid mhm. loolu ay la yoo allah ni nga ko laytaayee mbir la moo xamante ni mhm. waaye seen ñu ak wax yi xam ne ne ni nga laytaayee lu am solo mooy suñu bamba ni suñu tubaab ni meloon ci alxuraanu karim ak nan la doon dundee moom léegi kon tey loo ñuy jiitalaat loo ñuy leeralaat ci bi mu wootee yoonu murid di yaraate ban ji ba maanaam wan Fatah xam joo xam ne famille bi mu sosoo day famille bu am bu yàgg am ak alxuraan kóllëre famille bu yàgg lool ay maamam ak ay baayam ak ay mbokkam yëpp bu dee ci wàllu way juróom bu góor li ko dara ci Cheikh Mouhamadoul Kabir mooy maam ba ci Mamour Anta Sali ñëpp ay sëñ daar lañu woon bu dee ci wàllu way juróom bu jigéen fa mu tàmbalee ba ci soxna Astuwaalu Mbakke ba ci soxna Jaara ay jàngalekat alxuraan lañu woon kon moom sëñ bi dafa judd dafa gënee àdduna ci bii ab boo xam ne dafa fees dell ak ñu mokkal alxuraan fees dell ak i boroomi xam-xam moo tax yàlla wërsëgale ko mu teel a mokkal alxuraan ci loxooy ay mbokkam yi ko gën a jege moom sëñ Tuubaa ci boppam dafa bind alquran ci teel ci loxol boppam bind na kaamil yu bari yoo xam ne xoolu ko waaye itam da ko daal liggéeyee moom jàngale alquran ci mécceem la woon lu jiitu muy woote yoonu murit daf daa jàngale alquran mu nekkoon mécceem ci kanam way juram ba ni fi way juram bàyyi ko kon laaj boobu nga laaj ne méthode bi mu yaree murid yi daf koo laytaayal ndax dafa gën a àdduna di jàng alxuraan di ko jàngale ba waajuram bàyyi koo fi ba 1883 defe naa ci la njëkk a woote nag mooy woote bu bu siiw boobu bi mu waxee ne euh, képp ku fi ñëwoon di jàng si kese mën nga dellu fa nga jóge woon képp ku fi ñëwoon na di jàng ak pratiquer moo la andi mën ngaa toog ànd ak man ci li ma nekk ñi ñi ànd ak moom ñi dem ñi ànd ak moom nag méthode ba mu doon leen doon tarbiya mooy alquran alquran jooju nag dafa nekk ab ponk bu am solo ci yoonu murit waaye itam ni muy formé am murit da tey nekk ab xaaj am solo moom alquran moo tax ci ni muy tarbiya dafa daa digle ñu saxal jàng alquran kullu muridin bi yaluudu fal yudim ci tilaawatan li gayri dikrin xadru sim kon bokk na ci méthode yi nga xam ne sëriñ bi daf ko doon tarbiya alxuraan daf caa am cër lool mhm. bi nga xam ne tamit ci sëñ bi doon wootee yoon wi alxuraan da caa am cër lool mhm. moo taxoon mu tarbiya ci ay mag ñu bëree bëri mhm. bokk na ci rek ku ci gën a siiw sëñ daam Abdourahman Lo nga xam ne foo ko tudde rek sa xel dem ci alxuraan ñenn ci doomi sëriñ Touba yi sax ci moom lañ jaar kon sëriñ bi ak ndawam ak magam ak tarbiyaam lépp mën nañu alxuraan la ndax lu jiitu muy ñëw couleur bi alxuraan amoon ci mag ñi daa def li wax laawaan ak yu ñu demee ak di foye alxuraan bi mu ñëwee dafa changé couleur boobu euh, di teral waa alxuraan di màggal waa alxuraan di leen jox ay alal yoo xam ne day jéggi day wa ba tax murid yu bari seen doom yi dañ daa xëccoo njëkkante mokkal alxuraan ngir dab teraanga jooji euh, <coughs> sëriñ bi ci boppam nag alxuraan daf ko ñoroon ñor goo xam ne daf ko wutuloon ay mbooloo ci biir këram fu mos a nekk ñoo xam ne dañuy jàng alxuraan rek mooy seen métier ñoo xam ne dañuy bind alxuraan rek mooy seen métier am ñoo xam dañ koy jàng guddeeg bëccëg loolu rek mooy seen métier am ñoo xam bind rek am ñoo xam bind ay kaamil moo doon seen métier Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana radiyallahu anhu nga xam ne moo bind téere bi ñuy wax Irwaa Nadim nga xam ne bokk na ci delluwaay yi gën a wér ci yoonu murit wax na ci téere ba ne sëriñ bi mu jugee Gabon ba ñëw Daarul Mannaan mooy këram gi ci Daarul Mannaan lu jiitu muy dem ni alquran meloon bi mu ñëwee dafa yokk bi mu ñëwee dafa yokk mooy fi mu naan fawqa ma kaana bi ad'aafin mudaafa dafa yokk su waxtu wu ne ñu jàng jàng alquran ci bëccëg yi di ko xool ay kaamil bu guddee ñu koy naafi la ñi di ko tarit duñ ko xool ngir rek ñor gu ko alquran ñoroon bi mu jugee foofu tamit dem ñu yóbbu ko Mauritanie ba mu demee tamit foofu la gën a yéemeeti bëccëg yi dañ daa jàng alquran bala ko xiif metti ci sëñ sëñ Abo bu ma la dugg dafa mel ne bi muy dem Mauritanie sax dafa tànn mag ñi ko fay fekk mu nekk ay mag ñoo xam ne ñu wattu alxuraanul karim lay doon waaw dëgg la nga xam loolu day delluwaat ci itte jum jox alxuraanul karim jërëjëf sëñ Abdou Fra mhm. macha allah mhm. nga xam ne boobu Mauritanie ak conséquence ni méttee ak jamono ni méttee mhm. waaye fu mu toll rek alxuraan la jiital dañ koy jàng di ko mokkal bu guddee ñu koy bëccëg ñu koy bind guddi gi ñu koy mokkal mu bind fa ba def fa lu fa kenn defut ci alxuraan bi mu jógee Mauritanie dem ñëw ci yéen nga xam ne tamit méttiwaat na fa ñu ngi ñàkk ndox ak métti hmm. ba tey tamit taxut alxuraan mu desal ko mu desal ko alxuraan nga xam ne daal moom jamono bu ne fu mu toll rek alxuraan mooy lépp jamono metti lu tar tar tar moom du tee njàngum alxuraan mi mooy jiitu du du du du deltu ginnaaw déedéet ña ngi koy jàng nañ ko war a jàngee ci bëccëg gi gi ñu koy di ko naafila waaw ñu koy naafila hmm. nga xam ne te ci yéen hmm. am na lu yéeme lu fa am loo xam ne dafa am bis wax nañ ne mu dem ba xaw a sori tuuti dafa am néeg néeg ba mu dajale fa Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Mamadou Moustapha. sëriñ Mor Soxna. ak sëriñ Abdou Dia Mbacke. néeg bi wax nañu ne ñaari lal moo nekk. Serigne euh, Cheikh Mamadou Fadal ak Serigne Abdou ñoo bokk benn lal bi. Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Mor Soxna ñoo bokk benn lal bi. wax nañ ne juróom-ñaari weer. mu ne leen weer wu nekk kenn ko na bindu kaamil li ñu doon bind nag mooy kii di bind xaaj sow kii bind xaaj suuf. nga xam ne weer wi kenn ko ne boo xoolee dana bindu kaamil. juróom-ñaari weer bi ñu calculé muy 28 kaamil mm-hmm. biñ ko andilee mu ne loolu mooy arafi Touba macha allah pour xamal la ne rek jamono métti métti rek mm-hmm. dañuy bind alxuraan mm-hmm. di ko jàng di ko nafar di ko tari bi mu jógee foofu tamit mu état bu Thiène ñëw Jurbel nga xam ne tamit ba tey maa ngi ca métti dee rek fal alxuraan Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana dafa wax dafa wax ci roon na dim ne Jurbel dafa mujj nekk dëkk boo xam ne dafa dafa ni ma ko mën a waxee dafa saf sapp ak alquran mhm. ci ñu koy jàng mhm. daari yi riir mhm. li ñuy wax daari kaamil sax fa la njëkk amee mën naa ne nga xam ne defe naa ba léegi moo nekk Touba ba bu set danañ jàng ñeenti kaamil buñ xëyee buñ gannaaw julli suba danañ jàng ñaar gannaaw tusbaar ñu jàng benn gannaaw takkusaan ñu jàng benn bu dee ca Jurbel guddi aji bi ñu jàng juróom-ñaar te xam nga sëñ Abou man li ma ci xam a mooy sëriñ bi Ah, wax nga ko fépp fu mu mas a nekk rek njàng ma alxuraan dafay saf sàpp waaye fu ñu bi yar bi muy war a def ci ñoom du ko man ndax booba njaareem dëkku commerce la hmm. bëri na yéegal ak wàccil ñun ko fa yóbbee mook donga yi ñu ànd fa commerce bi dañu leen faat ba duñ waroon a doxee dëgg-dëgg ko doxee dëgg la waaye yaa ngi wax nekk rek njàngum alxuraan ma dafay saf saf hmm. dëgg la waaw xam nga ba tey dama tëb état bu sax boo xoolee xes de yi mu bind ci ëpp mu tënk ay ay alxuraan mm-hmm. yu ci ëpp am ñoo xam ne gabaa ko bindee mm-hmm. nga ne pour wax la ne rek mm-hmm. Moussa tàggoo alxuraan moom macha googu tamit daara kaan ba léegi def naa ma nga fa boo ñëwee Tuubaa tamit mi ngi fi nga ne kon man nga ne murid yi méthode bi bi leen Sëñ Tuubaa jaarale ñooy ñu ëpp lu ñuy jàng alxuraan ci àdduna ñoo nekk rek Sëñ Muntaxa yal na fi loolu te wér joxe na ndigal daara ju ne la nga mën nga koy jàng ba 17 safar ñu tëj dafa loolu amul amul fenn fu ñu ko def ci àdduna am na bis sa te mu def lu yéeme. benn bis wax nañu dafa génn ci ñaar fa fan ak juróom-benn. ci weeru koor. génnaale ab ab jukki ci ay kayit. daan ndax xam ngeen lu ma jublu ci lii. mu ne ko déedéet. mu ne damaa bëgg ngeen bindal ma ci ab kaamil. tey la ñaar fukk ak juróom-benn. balaa weeru ci weeru ko koor. balaa weeru koree feeñ. nañ nañ ma kaamil kaamil baa ngi nii. ndax man ngeen ko ñu ne ko waaw. Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nee na mhm. ñu séddoo ko ñuy jël ñaari récipients kenn ku jël la nga man mhm. ñu ko bind bi demee ba weer koor bi am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mhm. kaamil bi egg te neen la ci gën a yéeme mooy ñu doon bind kenn ko ne fa nga yem ci ci ci xët yu mujj bu ñëwee fam yam fa lay tàmbalee te amul benn espace ci diggante bi biñ ko joxee sëriñ bi mu ne leen ndax mos ngeen dégg ci kaw suuf ku def lu mel nii ñu ne ko déedéet mu ne an nii la audio amala amilin minkum kon loolu moo ko njëkk a def mhm. defe naa bu yàggutoo jamono ji weesu mhm. def nañ lu mel ni Touba mhm. daje bind ab alxuraan ci benn bis def ko ci benn jataay te li ci gën a yéeme sax maanaam dañoo indiwaat démb maanaam ki nga xam ne Serigne Touba maama moom la daan defarloo defikaayu téere yi dañ koo indi sax ab sëtam moom mu toog di defar kon kon mi ngi noonu mi ngi noonu àggee dañ ko yëkkati dugal ko ci biir kon mi noonu kon ni mu doon màggale alxuraan ak ba mujjoon mag ñi loolu lañ daa waxtaane ku am jafe-jafe sax mu loolu nga da ngay fexe bi bindu kaamil wala nga fexe bi andi ko kaamil ndax wax nañ ne sëñ Tuubaa daawul nangu ci loxoom néewaa na lu muy nangu dara lu dul alxuraan boo ko joxee da koy nangu fóon ko teg ko ci lal bu wur lal bu sell di ko way di ko tagg di ko sotti laj ko lañ di ko teral ba noppi jox la yow mi ko jox alal yu bëree bëree bëri ba noppi dé wax nañ ne li dépensé ci dind ay feggu wala fu ñu mën a def alxuraan wax nañ ne lu bari la ci daa dépensé ngir rek taral alxuraan mm-hmm. ak di yónnee di joxe alal ñu ko jëndal ay mm-hmm. ay ay ay ay ay ay ay mm-hmm. kon Serigne Touba méthode bi mu jaar ci lu jiitu muy dem ci géej gi ak bi mu ñëwee ak dundam lépp mën naa ne alxuraan la jikkoom lépp alxuraan la macha allah si sëñ Abou Mbacke ci leera yu am solo yooyu mu mel ni ni nga ko waxee kon sëñ Touba ndekete eh, diiru muy yar mu yi mi ngi yar ci bëgg alxuraanul karim euh, mooy li waykat boo xam ne mbaakool saalum di bind di ko yet hmm. mbaakool di bind di ko yet muy sàkk ay mool di ci hmm. boo boo woo di ko bindal hmm. mu féetewoo di la dundal boo koy bayal di ko bindal muy sàkk ñuy bay di la jox muy lu am solo waaye tam wax gi ma waxoon bàyyi sëriñ jatar ne am ndaw loo xam ne ku ko taxaw mu wattu alxuraanul karim nga sàggane gisuma lu ko jar ci kaw suuf te wax nañu booba daa toogoon waaye daa maanaam daa yegg suuf jël loxoom dóor ko ci suuf muy loo xamante wax dëgg yàlla ni ko waxee am solo la mooy jëmbi sëriñ bi ndekete diiru muy nekk ci kaw suuf amul hmm. fenn fa mu mas a nekk ba xat-xat hmm. tax mu gannaawal alxuraanul karim hmm. waaye lu dëkk ba metti métti lu ndox manki manki mi ngi yar mag ñi ci ñuy jàng alxuraan ci bëccëg gi guddi gi ñu koy taxawee tey itam wax nga ko ci euh, mag ñooñu ku mel ne sëñ Fallou euh, sëñ Mourou Moussa ni mu leen bindloo woon alxuraanu karim sëñ Fallou moom rek leen bind ci ay limi kaamil alxuraanu karim kenn xamunum toll Ah, ma na mbindin mi waaye ba hmm. léegi nii rek ak hmm. mbindam tasaaroo muy loo xam hmm. wax dëgg yàlla macha allahu taala leeral yooyu am na solo trop waaye nga laal tomb boo xamante ni bu mat taxaw la mooy ni ko fonke woon mag ñi ñi ëpp ci ñoom li jiitu sëñ bi ñëw alxuraan daa dañ koy mokkal waaye laawaan ak yu mel noonu taxoon ñu ñàkkal ko solo ba boo ko mokkaloon sax ab fawukaay nga koy def waaye bi mu ñëwee moo ko taaral jox itti alquranul karim boo ko bindalee indil ko kaamirum alquranul karim mu jox la waay boo xam ne sa ay sa ay bokk kenn mësu ko ci am suñu xel day dem ci ku ñuy wax sëriñ Moussa Ali Gueye wax nañu bi mu bindee kaamil ba koy yët sëriñ bi booba lu ndaw na waaye bi ko sëriñ bi gisee mu yor kaamiram alxuraan karim muy réer ci biir mbooloo mi dafa forcé ne nañ ko jottali bi mu ñëwee mu te ko ci uufal ko boppam sëñ Moussa moom yi mokkal gu mokkal alxuraan taxoon na sëñ Tuubaa jàppee ko mag ndax wax nañ ne ci njaareem am na bis muy woo koo xam ne sëñ Moussa mu mag la moo mag sëñ Moussa Alioune Gueye mii. Hmm. waaye sëriñ bi. Hmm. dal nañ ma woon Moussa mu mag mi. ba ñu mu mag ma dal leen ki wattu alxuraanu karim hmm. lu am solo kon sëñ Abo na solo. léegi euh, gis nañu sëñ Tuubaa wax na ci côté bu ne. waaye ndax mën nga sëñ Tuubaa lim bind ci alxuraan. ak nu mu ko doon tàggee ak nu mu ko doon wooyee. ak ban taxawaay la amoon ci ànd bi. maanaam bindum sëriñ bi. alxuraan ban relation la am. waaw jërëjëf sëñ Abdou Fatah ci laaj boobu sëriñ Tuubaa xam nga dafa am ay méthodes yu mu daa bindee lu ci ëpp daanaka mën naa ne génnul yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak alquran li mbind ci yoon lu ëpp ci mbindam daawul génn yooyu benn muy tagg wala muy sant wala muy ñaan lu ci ëpp ci mbindam foofu la jëm kon alquran dafa nekk benn mexwar dafa nekk benn xaaj bu ma neexee bu la neexee nga ne benn xaaj wala dafa nekk benn pàcc ci am mbindam boo xam da cee jël cër bu rëy rëy ndax am mbindam ci ëpp li ma la ko waxee daawul génn yàlla daawul génn yonent bi alayhi salaatu génn alxuraan alxuraan da cee am nag wàccuwaay bu yaatu boo xam ne du xaj sax ci ñu mën a leeral lim ci bind lépp waaye danañ ci tënk tuuti rek loo xam ne ci am mbindam lañ koy jëlee ci ay béytam yoo xam ne moom moo ko waxal boppam bokk na ci ci anam yi mu bind jëm ci alxuraan ci mbindam Sëriñ Tuubaa rek ci lañu ñu ne moom de moog alxuraan rek amoon nañu relation bu dëgër amoon na taxawaay bu dëgër ci alxuraanul karim relation bi mu am ak nag géej la goo xam ne dañ ci tànk tuuti rek lim ci mën a xam waaye la ci baatine moo gën a yéeme bokk na ci relation bi amoon alxuraan dafa waxal boppam ne man de dama kóllërante ak sama boroom ci jàpp alxuraan ginnaaw ba ma leere ne mooy ak njub ma ngooy ko rek ba mën a am njub googi wa aayidullaha ala axdil kitab bi xidmatin lil Moustapha baabi sawaab zahara lii ana ictisaaman bil kitaab wa bi xadiisil Moustapha huwa sawaab wajjahtu wajhi lil alimi bil kitaab saa isma saa ismatin mi maa yu addi lil itaab damaa kóllante ak sama borom ci jël alxuraan rek mooy ko rek xam daal mooy ak njub loolu yi moo jur liñ fi wax lépp loolu yi moo jur ba mu tàmbalee tam ak njëlbeen ak mujjam lépp di alxuraan kon loolu ci am mbindam lañu ñu moom di ndakate am na ak alxuraan gu bu dëgër boo xam ne yàlla la ci ko renteel bokk na ci liñ jàng ci am mbindam neen alxuraan mooy wirdam neen alxuraan mooy wéttalam neen mooy bu wéetee mooy dalilam bi nga xam ne ci lay tegtaloo jaaltu kitaab allahi wirdi wa abtagi bi tartilihi ma shitu it saara lii abba waxaat na itam ne ci alquran ci laa wommate sama ñoñ ci laa wommate borom xam-xam yi loolu tamit ci mbindam lañ ko yëge ne am nag alquran relation boobu ndekete yéen gaa yi déglu leen Muusa murit ba woon leen ndaw ak mag ak jigéen nañ wuy ji Ahmadul Mbakke magal gi laa leen di xibaar yéen ñi xamul te di xibaar te nar a dem di fa siyaar ngir jëmi Ahmadul Mbakke